ci lu am rek ci événement ci ay feet wala ay xew-xew moo xam bu jullit la moo xam bu katolik la waaye moo xam sax bu bois sacré la nañ koy defee gën saa gàtt dañu bind ab tex ab bataaxal dugal ci suñu page Facebook wala léeg-léeg ñu def déclaration noonu lañ koy defee tey rek ndax bii dafa bokk ci feet yi gën a màgg ci feetu senegal ak ci feetu àdduna ñuy ñaan yàlla mu may ñu ñu fekkee ñaan yàlla mu yombalal ko kenn ku nekk ci jullit mi ndax ñëpp xam nañu dafa di feet boo xam ne dafa ànd ak ay charge ak ay dépense te du yàq nag waaye yàllaa ñu ko sant ne ku ci mën a bégal sa bopp bëggal ci sa njaboot na nga ko def te bañ a xaabaabal ñu xam réew mi fu mu toll ci ay jafe-jafe ci wàllu économie wàllu koom-koom am mën de trop ci Sénégalais yi ndax li lépp lu mënoon ñàkk la ñu leen di ñaanal kenn ku nekk yàlla na ko yàlla oyofal fet bi di gërëm Sénégalais yi nag di leen gërëm ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ndax gis naa seen élan de solidarité bu ñu dëgmalee tabaski beeg léegi fu ne nit. yónnee na fa dara yónnee nañ ma lu bëree bëri bëri ci ay gàtt ma ciy sant yàlla yónnee nañu lu bëree bëri bëri ci koppar ma ciy gërëm Sénégalais bu ma jëlee rek misaal ci ku mel ni ab du Mbacké nga xam ne Sénégalais yëpp dañoo xam sama diggante moom ba tax lu ñuy def dañ koy faral di jaare ci moom lu mat fukki gàtt ak ñaar jaar na ci loxoom ak lu bëree bëri bëri ci ay enveloppe yoo xam ne yéen sénégalais yéen ko yëkkati teg ko ci loxoom ne ko dañoo bëgg nga yéetal ñu ko Ousmane muy loo xam ne dafa daf ma touché trop ndax amaana ma lu ma mën a jëndee xar dañu ñu ko defit defuñu ko parce que waaye yéene gi ñu am ci ñun cofeel gi ñu am ci ñun yërmande gi ñu am ci ñun moo tax ñu jël ab gàtt ne kii maa ko may Ousmane Sonko yàlla leen ko yàlla fay yàlla nañ ko fekkee déwén yu bëree bëree bëri ba ñu mën di continuer di ko defanee lii ndax sénégalais teranga la xam sénégalais séddoo la xam sénégalais bokk la xam sénégalais yërmande la xam te feetu tabaski di feet boo xam ne feetu séddoo la feetu teranga la feetu bokk la feetu yërmande la moo tax loole nga xam ne jox ngeen ma ko moo xam ci ay gàtt la moo xam ci xaalis la am na lu ma ci jël tuuti rek lu méngook li ma soxla man la ca des nag ma séddoo kook Sénégalais yi que loolu mooy li ñu xam ñun amaane ñoo xam ne mm. yelloo nañ ko te nekk ci ay jafe-jafe su dee sedd nañ ma man lu ëpp sama soxla ma dellu séddoo kook Sénégalais yi loolu lañ ñu jàngal ci loolu lañu ñu yore loolu mooy suñu réew te ngalaay bu ñu ko dara yàqal gàtt yooyu nag nga xam ne yónnee nañ ma ko da cee am lu ma ci jël li ma leen wax mu méngoog sama soxla dinaa ci joxe benn misaal rek ndax lu sori la ci man lu tooyal sama xol la mooy gàtt gii nekk sama gannaaw kii mbokk yi li tax mu doon loo xam ne dafa sori ci man gis ngeen gàtt gii ni mu mel ni mu rafete gis ngeen ni mu toll kii sëñ Cheikh Saliou Mbacke yal na ko yàlla yokk wér-gu-yaram yal nañ ko fi yàlla bàyyi lu yàgg yàlla na ku yàlla yokk ko ci bépp fànn moo ma jagleel gàtt gii keroog bi ma señ Moustapha woowee ne ma sëñ Cheikh nee na am na loo xam dala koo jagleel waaye gàttuk barkelu la te mu defoon ko nii daaw duguleet ma ne ko ah loolu de neex na ma lool waaye su ma sañoon na bàyyi man ma ñëw jëlsi ko ma yónnee oto mu jël si ko mu ne ma déedéet moo koy dawal moo koy dok dugal ci oto andi ko ba sa biir kër moo tax gàtt gi am valeur symbolique bu am solo ci man muy gàtt gi nga xam ne moom la fas yéene bar barkeloo rek ni ko sëñ bi waxee nii mu ko defee du gulleet wax naa ko ndax defaat na ko keroog bañ may agressé ci corniche ba ba tax ma mujj nekk ci hôpital tëdd fa ay fan doon faju dafa yónni sëñ abu jox ko enveloppe boo xam ne un million moo ci nekkoon ne ko nee ko enveloppe bi ñaan la ne ko téye xam naa li may wax nii sax bëggu ko ndax bëggul ñuy wax ci jëfam muy woon it lu tooy sama xel sama xol car may génn ci hôpital ba ci enveloppe boobu laa sàkkee bi ñu ma defaree sama facture muy sept cent et quelques mille ma fayee ko kon maa ngi koy yokk ñaan di ñaan Sénégalais ñu ñaanal ko ba lépp loo xam ne ay naalam lañu ak ay mbébét yàlla na ko yàlla yombalam ànd ak nag saa suñu gisee maag moom su ma demee seeti ko bu ñu waxtaanee bu may dem dugal sama loxo ci su may dugal sama loxo ci poche mu ne ma sa loxo boobu de bu mu génn ndax yow man maa war a sàkk di la jox di la jàppale waaye yow waroo yëkkati di ma jox kon jërëjëf Mbàkke suñu xol sedd na noonee ñu ko seddalee suñu xol seddee ci sëñ Abdou Mbàkke bi nga xam ne wax naa leen taxawaayam yeneen gàtt yi ngeen gis ni yépp ci loxoom la jaar moom it ba egsi ci man ak ay koppar yoo xam ne jaar na ci loxoom egsi ci man suñu nit ñu baax ñooñu yàlla ñu fi yàlla bay naka noonu it eh, yéene gi nga xam ne ba léegi sénégalais nga ko am ci ñun ma lim ci de lenn ci ay kilifa ni ma ko waxee ci sëñ Abdou Mbacke sax mu noon ko wax ci ñeneen ak ñeneen noonu la amee ci suñu kilifa suñu sëriñ suñu xarit suñu wëlëre di sëñ Fàllu Chouaïbou sëñ Fàllu Mbàkke ibna sëñ Chouaïbou Mbàkke nga xam ne yéene bi ñu bari am ci ñun rek te yëgoowuñu ko moom la am ci ñun ba tax mu tànn ab gàtt goo xam ne bu mat lañ ko doyee la ci bés bu ni mel gàtt goo xam ne moo ko yaral boppam yafal ko ba mel ni mu mel mu yónni ab ndaw nekk ñëwal jël ko dem yéetal ma ko Ousmane sonk yooyu di ay gestes yoo xam ne daf ñëw touché ndax suñu kilifa yooyu yëpp ñu ñoo di jël di dem di leen jox ndax xam nañu seen njaboot ni mu toll xam nañu seen euh, charge ni mu toll ko ci gis rek li mu yor ci ay nit yu mu yor ci ay daara li mu yor ci ay ndongo yu nekk ci biir ay daara te kenn génn ci dem sa yelwaan ñoo leen di jox ndékki añ reer ñu waroon di comp ñun di leen jox waaye ñu am yéene yu rafet yu mel noonu ci ñun ba saa su dara amee ñu yëkkati seen alal wala yëkkati seen matériel daal ñu ciy xalaat daal teg ci loxo nit mu ñëw ñu jàpp ni nag loolu ëpp na ab gàtt gu ñuy may rek waaye ab barke layul goo xam ne ñu ngi koy teg suñu loxo di ñaan yàlla yàlla nangu ko yàlla sàmmal ñu leen yàlla wattul ñu leen yàlla may leen yokk leen wér yaram la bàyyil ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne mënuma leen lim ndax ku lim juum